wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bu nu jiitalee nuyoor bi ak ziyaar bi di balu ñëpp àq tey bal ñëpp àq ci bés bu tedd bi ñu nekk bésub aljuma di ci ndokkeel ñépp ci loolu ci la ñuy fas yéene jàllale ab tomb ci tomb yi ci nin ko baaxoo defe ci waxtu wi ci fàttalante aka laaye biirante tomb bi nu andi woon tey mu ngi wax ci bés bii di aljuma ci biir loolu danaan wax lenn ci ay ngëneelam waxit lenn ci àtte yemu amee ak yu nu sopp yoo xamante ne bii nit ki war na koo taxawee ci bisub al bisub aljuma mel ne baatub aljuma wax na ne ni jullit ñiy daje ku ci ne fa nga ne am fa jàkka nga bako fa dem julli jee ci jumaay ja daje googee nit ñey daje di fa julli am na ñu wax ne loola tax ñu tujjee ko euh, aljuma mu doon it bés bu rëy ci bés yi ndax suñu boroom ci mbaaxam lépp lu mu def rek day am lu mu ca tànn mu doon la ca gën tekki wut na nekk ya ca des baaxul waaye lépp lu mu teg rek mu doon lu baax da tànn dara mu doon lu ko gënal wala mu doon lu ca gën ndax ku ne xam na ne at mi mi ngi toll ci fukki weer ak ñaar waaye dañuy wax ni fukki weer yooyu ak ñaar am na ca weer woo xamante ne bii mooy sangu weer ya muy weeru koor ci biir loolu ku ne xam na ne juróom-ñaari fan moo ne ci biir semaine bi waaye suñu boroom ci mbaaxam ak ngëneelam mu tànnaat bisub aljuma mu doon bis ba ca gën ay ngëneel yu bare bari daxañu ci biir aljuma jooju bu nu delloo ci taarix dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa salam dafa noo nettali wax na ne ñi jiitu woon jëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ci ay xeet daan ko doon wër bisub aljuma waaye kenn mënu caana jot yonent bi nag bi mu ñëwee ki ko suñu baram jagleel bisub aljuma bu doon bisub jullit ndax yonente bi wax na ne ñi nu jiitu woon ajjuma daf leen a réeroon ñu du ko doon wër nee na yahuti ñoom jàppoon bisub samedi nasaraani jàpp bisub dimanche nee na suñu boroom moom ci mbaaxam ñu wannu bisub aljuma mu jiitu bis yooyee ndax ku ne xam na ne ajjuma ngay jëkkee door a wax samedi door a wax dimanche te wax na ne bu ëllëgee ñun ñooy xeet wi mujjoon a ñëw ci aljuna waaye bu ëllëgee ñooy jiitu waxoon na ne ñun ñooy xeet wi mujj a ñëw ci àdduna muy xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa waaye ëllëg ñooy jiitu kon loolu dafay firi rek euh, wàccuwaay wu aljuma am ak daraja ju mu amee ndax ñi jiitu woon ci ay xeet mu di yahudi ak nasaraan yi ku ci ne yaa ngi ko doon wër ba jàpp bés jàpp ne booba la waaye yonent yàlla bu tedd bi mu ñëwee ci la suñu borom wan bisub aljuma boobu mu wax ne ñun ëllëg ñoo mujj na ñëw ci àdduna waaye ëllëg ñooy jiitu bu nu ñëwee ci ngëneel yi mu amee yonente bi wax na ne bés bi gën ci bés yi mooy bisub aljuma kon mooy sangub bis yi nee na bés boo xamante ne bi dafa xëy fenk doon bisub aljuma moo gën beneen bis bu moom ci li mu làmboo ci ay ngëneel ak i tuyaaba bokk na ci ay ngëneelam wax nan ne yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne am na ci waxtu wow ci aljuma ku ci ñaan suñu boroom nangu ak ñaana nee ku ci ñaan suñu boroom du delloo sa ñaan daf fay nangu boroom xam-xam yi nag wute nañ ci wan waxtu la am ñu wax ne bu imaam bi taxawee ci minbar bi la am ñu wax ne saa su liqaamee eh, saa su defee mu bay war a julli diggante boobu la am ñu wax ne sax diggante tusbaar la ak tàkkusaan bu tàk eh, tusbaar ji jeexee ba nuy dëgmal tàkkusaan diggante boobu la waaye lu ci mën a am rek kon jullit ba lam ci war a déggee ajjuma saa yu yeewoo rek war nay fexe ba di ko dundal ci ay ñaan ngir waxtu yooyu ñu wax bu mu ca mën a doon rek mu mën caa jot ca na gëne kon loolu am nga nee laat la bu aljuma am mu di suñu borom dëxëñ na ci biir aljuma waxtu woo xamante ne bi ku ci ñaan suñu borom nangu ak e, ñaanam wuutey gi nag wax na ne am na ci wan waxtu lay doon waaye la ci am solo mooy jullit bi la mu ci war a dégg rek aljuma saa su yeewoo ba keroog jant bi sol lu mën ci ñaan na koy def bokk na ci ngëneel yu mu amee moom bisub aljuma bés la bopp suñu boroom mën na cee jéggal nit ki ay bàkkaaram te jële nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ba tey ne nit ki su aljuma su yeewoo walla bu waxtoo julli jotee mu sangu xeeñoo gët ca gëtt ga gën a neex ci gëtt ya génn ci këram dem waxtoo julli jotee mu dem julli ji bu ni wax mooy bu imaam di xutba mu déglu ànd ak teewlu nee na su defee loolu day suñu borom dana dana ko jéggal bàkkaaram yi doxoon diggante aljuma ba ko jiitu ak aljuma boobe kon bokk na ci ngëneelam bu nit ki defee wàccaa yi teewlu digganteem ak boroomam te sellal ko suñu boroom mën na caa jaare jéggal ko ay bakkaaram yi mu amoon diggante aljuma booba ak aljuma ba ca topp am na sax feneen fu mu wax ne da ko cay dolli ñett kon mu mel ne bu ko defee da ko laat ñetti fan muy fukki fan yoo xamante ni bi suñu boroom dana ko jéggal ay rëcc rëccam kon loolu am nganeel la bu rëy bu aljuma amee yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ba tey ci ngëneeni aljuma ak guddeeg aljuma ci jëmmam ne képp koo xamante ne bi suñu borom def na mu làq génn àjjuna ci bisub aljuma wala guddeeg aljuma suñu borom dana ko fegal hmm, fitnaay bàmmeel kon loolu ak ngëneel gu rëy la gu aljuma amee képp koo xamante ne bi génn na àdduna ba sub aljuma wala guddi guddi ga mooy démb ci guddi yonente bi wax na ne suñu borom dina ko fegal fitnaay bàmmeel ak tiis wa fa ne ak mitit wa ndax yonente bi salaa waxoon na ne bàmmeel benn mu nekk ab dër ci dëri aljana wala mu nekk am pax ci paxi sawara nit ki nag saa su fi jógee mu tombeek guddi googu wala bëccëgu aljuma yonent bi sallallahu alayhi wax na ne suñu boroom dana ko fegal fitnaay bàmmeel ak tiitaanga ya fa nekk ak métit waaye ci biir loolu saraxe ci aljuma ndax jëf ju baax danañ ko ful ci jamono danañ ko ful ci yëg-yëg danañ ko ful ci barab waaye danañ ko fulit ci yitte ji ko nit ci jox nit ki mën naa julli nga julli waaye yitte ja ngay jox julli moom bu ko joxut amaana bu nuy fay sa fay mën naa ëpp bëggam nit ki mën naa woor nga woor amaana bu nuy fay ak payam ëpp sa bopp xëy na moom itte jam ko jox ak yëggam ko jox joxoo ko waaye saraxe li muy baax baax baax ak li muy baree daraja daraja def ko ci bisu aljuma da ca ëpp tuyaaba waaye da ca ëpp euh, daraja waaye da ca ëpp aw yiw ni nga xamante ne bii saraxe ci weeru koor noonu la ëppee doole saraxe ci weneen weer wudut weeru koor noonu la sarax ëppe doole ci bis ajjuma ci beneen bis bu dul ajjuma ndax ci nii nag ci leen misaale nit keet bés yu baax yii wala waxtu yu baax yi ñuy wax nit ki bu fi defee aw yiiw dañ ko koy fulal ni ki noonu bu ca defee safaan boroom xam-xam yi wax na ne safaan ma noonu lay demee ca moom ni ca def lu baax ame solo noonu la def ca ab safaan méttee na la doyewaar na la mën a sone la nit ëllëg bokk na ci ngëneel yi aljuma amee ku ne xam na ne bis bii rek muy aljuma ci la ne daje ci benn barab julli fa ñaari rakka mu wuutu tisbaar ci ku ne ci ñun kon loolu nga ne lu rëy la bis bi amee ndax sañee su ko def ci alxames sañee su ko def ci euh, samdi sañee su ko def ci dimanche ba bis yépp jee amul benn bis buñ ci sañe a joxe julleeg aljuma kon loolu day firi rek nga ne lu aljuma am ak dara juma amee waaye ci biir loolu ki nga xamante ne bi aljuma daf koo faat mu ñëw fekk ñu julli aljuma pare ñaari rakka yi kone xam ne ne moom mënta ta julliwaat aljuma la muy julli mooy tisbaar mooy wóotu aljumam kon loolu am ngëneel la boo xamante ne bi dañ koy fekk ci si aljuma te sañee su ko def ci beneen bis bu dul aljuma gannaaw boo xamante ne bi sart ya war a daje ci aljuma war a am tase na ci aljuma ja bu dajeen ci beneen bis bu du àjjumaat dee su ko fa sañ a def kon loolu day firi rek ne àjjuma ngëneel bu rëy la bu mu amee ci biir bés yi ci des waaye yonent bi salaa wax na ba tey ne julli subaak aljuma ci mbooloo ne ne moo gën geneen julli gudut moom comme tey jii ji subaas aljuma si nit ki dem ci barab bu mbooloo ne jullee ko fa moo ëpp tuyaaba ëpp ab yool geneen julli gudut moom kon loolu day firi rek ne aljuma bari na nga ne lool waaye bokk na ci ngëneel yi mu amee ba tey moom aljuma wax nañ ne malaayika yi su aljuma jotee bés yépp la mooy waxtoo julli waaye aljuma da caa ëpp doole danay taxaw ci bunt yi di bind tur ñuy dugg ki jiitu dañuy wax ne mooy nin ko soppe ci sàppa euh, ci sàppe ki jiitu tuyaaba mën naa toll ni gëléem ci rëyaay buñ ko doon natt ka ca topp mën naa toll ni aw nag ka ca topp mën naa toll ni am xar ci tuyaaba ka topp mën naa toll ni ginaar ka ca topp mën naa toll ni am nen kon mu mel ni teel dem get nga neen lu rëy lu mu amee ndax yonent bi wax na ne malaayika yi day taxaw ci gudd bi di note ñiy dugg ci seen tur ka jiitu dem ca sàppe ka ca kanam am na tuyaa bu ju toll ni gëléem ci ab rëyaay ka topp aw nag ka ca topp am xar ka topp ganaar kaja topp am nen kon loolu nga lu rëy la loo xamante ne bii euh, bisub aljuma amee na ko ci biir looloon sopp nan ci képp kuy julli ji aljuma suy dem mu fexe ba waaj waajiin wo wu mucc ayib ci fexe ba bu mënee am yére ndax wala yére yoo xamante daf koy jagleel ajjuma rek waajal leen waajin woo xamante ne saa su ajjuma jotee benn ca yooyu lay jël dem julli jéem sopp nañ ci sax bu dee dafa doon lu weex ci biir loolu mu fexe ba bu amee gët mu xeeñoo di zikar ak tudd suñu boroom waaye di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu nu ñëwee nag ci lenn atte wala mbir yoo xamante ne bii yu jar a bàyyi xel la ci aljuma ku ne xam ne ne atteeb aljuma dañuy wax ne lu war la ci képp ku am xel ku majeur waaye ku fi ne kon ki tukki tukki goo xamante ne bii sart waral mu wàññ julli daje na ca moom ci guddaay ba bu boobaa moom dañuy wax ne julli ajjuma doonut lu ko war su ko defut dara du ko ci topp waaye ci biir tukki googu dañuy sib bisub aljuma nit ki xëyee këram di tukki ci ngéeru imam Malik dañ koy sib bisub aljuma nit ki di ko jóge fa mu dëkk di tukki mu am foo xamante ne bu fa àggee day arab mu di comme manees na cee joxe ci waxtu yi ñu toll nii dañuy wax nit ki bu fi jógee di tukki loolee mu def dañ koy jàppee lu arab ci lu dut nag lu mënta ñàkk ci misaal nit koo xamante ne bii dafa wéradi mu war ko yóbbu loolu lu mënta ñàkk walla it ñu wooye ko loo xamante ne bii su ca demut bakkan mën na caa rot wala lu mel ni noona loo xamante ne fitna la su demee koo ko taxut nuy wax waaye nag tukki goo xamante ne bii tukkeeg tukki la rek nit ki mu def ko ak mu ñàkk koo def du ko wàññi dara tey mënta jur genn jeexital boo xamante ni bii na lay doon wala looy wàññi keneen ci lu jëm ci dund lu mel noonu bu ko nit defee ci waxtu wu mel nii nga xamante ni bii ajjum euh, waxtu waa ngay waaja bi dañuy wax ne lu araam la def kon loolu lu jara bàyyi xel la ci biir loolu yonente bi sallallahu alayhi waxoon na sax ci ñi nga xamante ni bii dañuy toog bañ a julli lu jar a xel la toog bañ a julli amul benn ngànt yonent bi waxoon na ne itte woowoon naa waxtoo julli jot waaw aljuma ma digal kenn mu jiite ma wër dëkk bi ñi nga xamante ni bii julli jiwnu ma jël seen kër yi lakk ko seen kaw kon loolu day firi rek doy waar bu nekk ci ñàkk dem julli ji te amoo ngànt nit ki nag bu amee ngànt lu ko tee julli ji xam na su ko amut it xam na kon loolu euh, yu jara bàyyi xel la mu di ñàkk a julli ji te amoo ngànt yonente bi salaa sallam waxoon ne na ñetti aljuma ku ko tardé ci lu dul ngànt ñu bind ko ci wala ñu boole ko ci naafiq yi te innal munafiqina fi darakil asfal min an naar wax na ne ku am ñetti ajjuma yu mu tegalee te julli jiw ko ci lu dul ngànt suñu boroom daf koy note boole ko ci naafiq yi te suñu boroom wax na ci alxuraan ne naafiq yi fi gën a tàng ca sawara gën a xóot fa lañ leen di dugal ajjuma bu jotee dañuy wax ne lépp loo xamante ne bii daa jëm ci jëflante muy jaay ak jënd ak ya ca aju ak lu nuroog moom ndax foofu alxuraan la mu tudd mooy jaay wala jënd ne dañ koo war a teg ba julli ba noppi mooy suñu noddee nodd ak ñaareel kon lépp loo xamante ne bii nit ki da koy jëf te di ca fàggoo lu muy jëfandikoo am koom su noddee nodd ak ñaareel gi da ko war a arrêté ba nu julli ba noppi mu door dellu ci ay soxlaam wala bu dee lu mu jaay la wala lu mu jënd dañuy wax ne jaay moo baaxul islaam nan ko bu dafa jaay nit danoo war a xàccaat njaay mi delloo ko borom kon loolu day firi na rek aljuma bisu euh, boppam la waaye bis bu bari ay ngëneel la ba ci biir jàkka ji wala jumaa ji dañuy wax na jamono bi imaam yéegi ci kaw minbar bi xutba lu du déglu ko daganatu julli ku ne xam ne ne naafile yi ñu def sunna la waaye dañuy wax ne déglu xutbaab imaam bi farata la te nit ki bëgg lu baax waru koo yeb ci bàyyi farata di joti ji sunna kon bañ a naafila bu imaam xasee ci minbar bi déglu day gën di julli di joxe ay rakk ndax li ngay def sunna la te ci giiru imaam Maalik dañuy wax déglu xutba bi tey taxaw taxawaayu farata kon nit ki warut a bàyyi farata di joxe sunna ci biir loolu wax na ne sax kiy wax bu imaam xasee taxaw ci minbar bi kiy wax nga ne ko noppil dañuy wax na yow ak moom kenn amu ci julli kii wax nga ne ko noppil diw yow moom yéen ñaar kenn amu ci julli kon loolu day firin rek ajjuma bisu boppam la waaye yiit yu ci jara yu ci jara bàyyi xel la bokk na ci yin ci bañ buñ commencé nit ki sax dañuy wax ne saraxe li muy baax baax saraxe li muy baax baax nit ki bu imaam xasa taxawee ci minbar bi wóotuta saraxe waru koo sàkk waaye waree koo jox li muy baax baax waratu koo def waaye kii laaj waratu koo laaj ndax foofa dafa am lu fa lu fa sàkku ci yow mooy nga déglu ndax la muy wax am message la bu war a jàll ci ñafane bu dee lu war a jëfe ñu jëfe ko bu dee lu war a bàyyi ñu bàyyi ko waaye nag xel nanguwut nit mën a boole doo ñaar di julli di teewlu sa digganteeg sa borom na mu ware boole ko it la imaam bay wax ca xutba ba nga mën koo boole di ko dégg ba ci jaay ak jënd waxoon nañ ko léegi ci ginnaaw ci biir jàkka sax dañuy wax ne bu dul ajjuma yonent bi sallallahu daana wax ne ku ngeen gis muy jaay wala muy jënd ci biir jàkka nee nañ ko yàlla boo jaral te yàlla bu yàlla barkeel sam jaay li ñuy waxoon ci ginnaaw nag mënees na jee seetee koo xamante ne bii ci misaal tey jii barab ba muy jógee di julli si bu fa jëlut oto ñëw man naa mën naa bañ a julli kooku dañuy wax ne may nan ko ndax loolee da koy dimbali ci mën a julli wala koo xamante ni bii ci misaal barab ba mu ne ndox ma nuy jàppoo dañ koy jaay kon kooka ngir mu jàpp mën a julli joxe ku ne xam na ne jàpp bokk na ci sart yi tax julli mën a mën a mën a wér mën a baax kon kooku su jëndeem ndox jàpp ja dañuy wax ne ka ko jaay ak ka ko jënd jafe-jafe du ca am taxul ñuy wax waaye nag kay jaay wala muy jënd te la muy def duggut ci yii wala yu mel ni yi ñu tudd loolee mu def bu imaam xase yi ci kaw minbar bi war a xutba dañuy wax ne loolu dafa arab kon julli aljuma ngoog bisu aljuma ngoog bari nay ngëneel bari nay tuyaaba la ci war jullit bi mooy bu xëyee ni ko waxee woon ci ginnaaw comme waxtoo nangu ñaan la wala am na ci biir waxtu woo xamante ne bii ku ca ñaan suñu borom nangu ko na fexe kon ba ajjuma bu xëyee lu mu man ci ñaan ba keroog jant bi soo na def ndax waxtu woowee ñuy wax mu mën a tombeek moom ba la mu bëgg yéene ko suñu borom defal ko ja yàlla nu yàlla defal dégg ak topp te defal nu jàmmi àdduna ak alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh مد سلامك بغير ودي لمن ما